ci euh, daanaka ci daanaka ay vers dix-neuf yi la am benn xibaar boo xamante ne même jàllale naa ko sax ci RFM vingt une heures ak vingt deux heures bi ñeent ci ñi nga xamante daal dañoo njort ne ñoo doon jaay suuf yi doon ko dagg di ko jaay ñu teg nañ loxo loolu nag ci information yi sûre yi jóge ci autorité yi ak commission bi nga xamante ne moom mooy commission de recensement yi ci laa ko jëlee mbir bi nag nee nañ sax benn alkaati la boo xamante ne nekkatul alkaati ak benn géomètre ñoom ak ñaari courtier ñoom ñoo doon def mbir yi dem di def di di ko dagg di morcelé di ko jaay ay terrain cinq cent mille francs bi ñu leen tegee loxo nag euh, bon enquête bi sax déjà ñu ngi leen euh, ñu ngi garde à vue mais bi ñu wéyalee enquête bi ñoom sax ñu doon wax bi ñu leen laajee koppar yi ñaata la mais nee nañ bon koppar yi bari na waaye xamuñu xamuñu ñaata lañu parce que li ñu doon jaay di lekk rek waaw ok loolu muy xibaar bu sûr boo xamante ne aussi. vérifier nañ ko auprès des autorités euh, de l' autorité préfectorale vérifier ko aussi ci ci commission bi nga xam ne moo yor wàllu recensement bi leneen loo xamante ne aussi kilifa yi wax nañ ñëw parce que dañ ne euh, dañoo woote ci benn bërëb ne képp koo xamante ne yor nga acte de vente nga ñëw ñu recensé la mhm. bi ñu ñëwee nag la ñu maanaam euh, def enquête bi ñoom ñi dénoncé ñi leen jaay terrain ci kaw loolu nag nañu basé ak yeneen mbir ba arrêté ñooñu am na sax ñoo xamante ne aussi nee na ñu ngi ci liste bi euh, jotaguñ leen mais ñu ci bëri c'est sûr que ne d'autres vont tomber alors que bon bi nga xamante ne moom mooy préfet bu bu hmm. Thiès moom li mu wax moom mooy euh, euh, ñi nga xamante ne toj nañu leen du ay kër yoo xamante ne kër ñu dëkk la daanaka ay comme ni ñu ko doon waxee léegi rek xam nga am na ñu doon wax naan ay dëkk am na ne guddi gi lañ doon tabax ñooñu ñi nga xamante ne kër yooyu àggul ñooñu la ñu toj seen kër mais nee na ñi ñu recensé trente neuf familles ñoom ñoo am seen kër yoo xamante ñu ngi dëkk ci biir kenn laalu leen loolu la Moussa Diagne mi nga xamante ne moom mooy préfet bu diwaanu Thiès bi ñu ko laajee loolu la ñuy expliqué ak waa Descos mbir mi nag problème bi mooy comme ni ñu ko waxee rek am na sax euh, préfet mi ngi wax na am na ñoo xamante ne sax dañ doon guddi gi ñëw di tabax bari ki dem moo njaay bi ñuy jugé aussi les jeunes là jeunes yi ñu arrêté woon ils étaient ils étaient sept six personnes lañu woon mhm. mooy ñi bi ñu leen doon jugé au niveau du tribunal maa nga woon mais li nga xamante ne moom la leen procureur bi wax parce que procureur bi dafa wax ne ñoom ñëpp ñi nga ñi nga xamante ñoom la ñu arrêté genn wàll gi pratiquement dëkkuñu fa. dañoo dégg ok Cheikh defe naa l' a été dit ñu ngi lay gërëm di la sant Cheikh Anta merci beaucoup l' essentiel a été dit jërëjëf jërëjëf on a euh, l' de l' information alors.